bureau pédagogique arabe ci direction des écoles de Touba. mo nek ci mu jama Cheikh Khadim complexe Ahmadou Khadim bi ci ngeen ko xam ci eh, université bi bànqaas bobu ci leen bi bile commission pédagogique ñu daldi koy taxawal ci ndigalul xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul muntaha Mbacké Bachir ngir ñuy saytu école yi nga xamné ne ñi ngi ci dëkk bu sell di Touba. loolu tax ñu daldi amal ab visite ci complexe keur Mam Awalo bu Serigne Makhtar jenn bi ñuy wowe Kamal lu ëpp ñaari waxtu. néew ñi ngi ci bërëb bi amal waxtaan wu yaa ak jàngalekat yi nga xam ne ñoo fa nekk. ñu ñëw xool rek liggéey bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké santaane ci ñu war ko taxawoo école yi nekk ci biir dëkk bi lu bokkut ak daara jam def fa leeg majalis baag yu mel noonu ci loolu rek moo tax ñu ñëw fii ñu am ak jotaay ñi fi nekk ci njiital sëñ Maxtaar ak ñi koy jàppale ñëpp weccante xalaat. gannaaw bi la ñu yëkkati kàddu yi di xamle ne li ñu fi gis dal na xel te it dëppoo na ak bëgg-bëggub xalif général des mourides. waaye gis nañ ni liñ fi fekk dal na xel. gis nañ ni bañ tàmbalee ba léegi ñoom ñu ngi koy ànd ak ñoom. bindu nañ ci plateforme bi nga xam ne ubbi nañ ko pour école yi. ñëw nañ ci réew yi ñu jot a am documents yi jot nañ ci ca ñu ngi koy. jëfee yoon wi ñu jaar dañ leen ca fekkoon ñoom cañ def ci nag ay ay ay liggéey yu ama am solo yoo xamante ni macha allah bu ñëpp meloon nii yaakaar naa ni liggéey bi dana gën yomb dana gën a dalal xelu sëñ Munta sëñ Muntaxa ca xam nga réew yi bu ñu rawantee rek ñi ngi rawantee ci li ñuy tuddee seen xeetu nit ñi ñu am mooy li ñuy tuddee capital humain mawduu bi ngeen xam ne yéen moom ngeen am tey te mooy adab te mooy yar dégg nga ni ko sëñ bay Jaxate tënk te lu gàtt ku yaru rek a mat a xam. mu jota indi ay seede ci taxawaay bu jéggi dayo bi nga xam ne Serigne Makhtar Diène am na ko ci complexe bi ngir taxawu ndongo yi ba ñu am xam-xam te it ñu nekk ci ay conditions yu mucc ayib lool muy xamle ne lim fi gis bëriwul ci bërëb yu mu koy gis. li ñu gis fii tamit ci lu aju rawatina ci wàllu yéene ay ki projet ci yiñ jot a jaaragun yëpp. ci yoo xam ne yu yéeme la ci ni ñuy saytoo jàngalekat yi ak ni ñu leen di taxawoo wala boog ñi koy jàppale ci école bi li ma fi dégg fii am na ci yoo xam ne moom maa ngi ko fi door a dégg école Touba. projet yi nga xam ne moom it am na ko fii bokk na ci jafe-jafe yi gën a fës ci biir Touba. Euh, jafe-jafe dem ak dikk ci wàllu kaaraange ak li nga ciy perte ci waxtu. mu am ci naal bu toll ni wut ay biis yooyu moom macha allah ak it euh, tàggat xale yi buñ noppee ñu mën a am am xëy ci li ñuy tuddee formation professionnelle lolit lu ama ama am solo la. Serigne Fallou mbake di kenn ci kilifay complexe keur mam Awa bi ay kaddom di deugal lu ni mel. personnel enseignant bi nak mom da leen def dans de très bonnes conditions. ba nopi ba mu xoolee ne salaire yi nga xam ne convention enseignement privé yi ñu proposé ci sen gris mom moom da koo xawoon a xeeb ba tax mom daf ko yokone nga xam ne lim ci yok soo ret génnee retenue yi dana mën a amoindre kii nga xam ne li ñuy dese dana dana dana kii te vraiment condition yooyu enseignants yi xam nañ ko moo tax itam ñu ngi def lépp pour école bi jëm kanam élèves yi aussi ñi ngi ci condition yu baax moom Serigne Makhtar Diène gannaaw visite bi nga xam ne commission pédagogique en arabe bi nekkee ci université Cheikh Ahmadou Bamba amal nañu ko ci bërëb bi nekk na lu mu rafet rafetlu lool yi am ci mbégte bu baax ndax kenn ku ne booy yëngu ci dara bëgg nga sa kilifa ñëw seet si la ki ngeen di liggéeyal mu yabal leen fi teg loolu liggéey bi dara jey kooku rek lañu leen mën a jox te mooy sëriñ mun Mouhamadul mun taxaa yal na fi yàgg te ànd ak wér sëriñ bi ni ma ko waxee rek jël na projet bu am solo te mooy lee mu def fale ca muy université bi wala muy complexe bi nga xam ni ni mu toll ak yaatuwaay ga fa nekk yëpp mel na ni ci yii la ñuy toggee war leen a jox kon na ngeen ñëw ni ñu doxale leen nii defee leen nii loolu sant nañ ci yàlla bu baax sant leen ci ci jataay bi. ngir gën a tàggat jàngalekat yi ba yokk seenub xam-xam ñeel ndongo yi loolu Serigne Makhtar Diène di xamle ne fas na yéene bay ci waaram te du yem ci jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci complexe bi su ci dëppoo amee dina daal di taxawal journée bu ni mel. ñu ni danañ fas yéene. ñu jéem a xool kem kàttan jéem a def yoo xam ne sax danañ ko mën a woote. jéem cee jàpp ci dikk bi ñoo xam ni ñoom danañ ko jël en sarce boo xam ni danañ fexe ba de organiser loo xam ni ñëw seet sëñ naa ñoom seet si leen bu ngeen ñu ko mënee may ñoo xam danañ jël ñoo xam ni sax duñ ko yemale ci daara ji waaye danañ ko yaatal ba ku ko bëgg ci tuubaa ñu mën koo defee ci daara ji loolu incha allahu rabbi ñu def ko muy ab ab ab liggéey sunu barkeelu foofu. ci fàttali atum ren ji la njàng mi daal di door bi la complexe mën a jël ay junni junni ndongo te seenu nekkin saa su nekk muy gën a mucc ayib lool bus bi ngeen di gis ci bis bi lañu ko daal di daloo mu fekk si bi fi nekkoon ngir muy mën a yombalal dem beeg dikk bi ndongo yi fi jàngee loolu yi feeñal contentement bu rëy ci élèves yi nga xam ne ñu ngi ci complexe bi. bi la visite ñi ngi ko amal àllarba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril atum 2024 ji